bokk incha allah ñu ngi war a jël tey suratul balad laa uqsimu bi hada albalad alhamdulilahi rabbil alamin wa sal allahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sahbihi ajmain mbokk ñu ngi salaat sant suñu boroom ci xéewal gu màgg gi mu ñuy dundal ca bis yi ci des di gën a néew alhamdulillah mi ngi ñu wërsëgal ñu ciy dund kon di daje cib néegam di jàng ab téeréem ay ngëneel la yoo xam ne moo ko def lañ cay taxawee yal na yàlla nangul ñu ko te def ko yiwu àdduna ak yiwu alaxira kon incha allah ñu jël suñu bindu bu njëkk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد العقبة وما
barakallahu fiik auzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim suñu boroom mu ne laa déedéet uqsimu bi hada albalad maa ngi waat ci bi la dëkk muy makka wa anta xillum bi hada albalad yow day yaa ngi aji kuy dal di dëkki ci dëkk bi wa walidin wa ma walad suñ borom mi ngi giñ ci waajur ak la muy jur laqad xalaqna al insana fi kabat sikk amul ci ne ñoo bind doomu aadama ci coono a yaxsabu an lan yaqdira alayhi ahad ndax jàpp ne ne kenn du xatal ci moom ci lenn lu mën a doon yaqulu ahlaktu maalan lubada ba tax mu naan man day alak naa alal ju bari ayaxsabu an lam yarahu ahad moo tax jàpp ne ne moom gisu ko kenn na ko mën a doon alam naj'al lahu aynayn moo ndax ñun defuñu ñeel ko ndax defuñu ñeel ko ñaari bët wa lisaanan wa shafatayn ndax defuñu ñeel ko làmmiñ ak ñaari tuñ wa hadaynaahu najdayni ndax ñun jubaluñ ko ci ñaari yoon falaqtaxama al aqaba moom day sóobuwul ca yoon wu jafe wa aqaba mooy aw tund la daan nekk ci digg yoon wa nga xam ne ñu bari duñ am kàttan ci yéeg ko wa ma adraka mal aqaba ma lu lay xamal barrage boobu ay pakk boobu nga xam ne fokk nga yëg ko pour mën a texe mooy fakku raqaba mooy tekki la nga xam ne mooy baat ay mooy dog buumug njaam comme ni ko maam yi waxee te mooy goreel jaam aw itaamun fi yawmin zimat gaba wala nga lele lele ñam ci bis boo xam ne bisu xiif la yatiman za maqraba jirim boo xam ne aji jege ñaale la ñeel la aw miskinan za matraba wala miskin boo xam ne aji taqoog suuf la ay amul dara summa kaane min alladina amanu gannaaw ba nga bokk ci ñi nga xam ne dañoo gëm wa tawaasaw bi sabr di dénkante ci ak muñ wa tawaasaw bil marxama di dénkante ci luy jur yërmaande ulaika asxaabul maymana ñooñu day ñoom ñooy ñoñi ndey joor ña walladina kafaru bi ayatina ñi nga xam ne nag dañoo weddi samay aaya hum asxaabul mashama ñooñ day ñooy ñoñi waa càmmoñ ya alayhim naaru musada dana nekk ci ñoom sawara boo xam ne bu ñu tëj seen kaw la mbokk suñu boroom day waat ci makka makka mooy dëkk bi gën a tedd ci kaw suuf julli ga nga julli ca jàkkay makka moo gën téeméeri junniy julli boo julli feneen mu bokk ci ponk lislaam jullit danga war a aj makka amma suñu boroom li muy wax wa ante xill xillun boroom xam-xam yi wax nañ ci ay wax bokk na ñaar yi ci gën a siiw mooy yow day yaa ngi dëkkee makka ay kon dañ laa war a wormaal waaye da ngay gis ne wa anta xillun waa makka wormaal nañ ku nekk ne duñ ko laal bam des yow yow moom sa deret da ngay gis ne bokkul ci luñ wormaal te xam ngeen ne suñu borom mu ne waa makka kër ba ñuy réunion mi ngi noonu li yàq yàqutuluuka aw yusbituuka aw yuxrijuuka da ngay réunion ne waaw kii dañ koy rey benn yoon wala dañ koy tëj wala dañ koy génne almuhim ak kéeféer naka jekk loi yi muy tëral l'islam bokku ci loolu it moo tax aay yi ca Makka la wàcc waaye ba yonent bi alayhi salaam gàddaayee dem Madina it moo ci saxaabaam ba ñëwee bëgg a duggaat Makka loolee waa Makka daawuñu ko bañal kenn même bu doon weer yi passé lañ xeexoonu dëkk ñu rey ci ñoom lu dul jeex aj Makka bu jotee bu waa dëkk bi ñëwee kenn du leen tere Makka amma bi yeneen ci bi alei salaam ak saxaabaam ñëwee ñu ne non non non ñii ñoom comme gëmuñu suñuy xërëm kenn du leen bàyyi ñu dugg Makka loolu la gaa yi waxoon ci Algérie ba ñuy ndaw ña fa nekk di waa fiis jàpp ne ah comme ñii dañuy woo ci démocratie nañ dem ànd ñoom ci démocratie créer seen parti politique def seen campagne gagné largement mais gars yi lu ñu wax nous ne donnerons pas à la démocratie aux ennemis de la démocratie ñii gëmuñu démocratie bis bu ñu jëlee nguur gi dañu fiy tere ay parti nangam kon kenn bokkuñu ci ñu ñuy wax et pourtant ñoom ñoo tëral seeni loi ne mbir mi kat ku raw yaa jiite pouvoir bi waaye mbokk li xewoon démb mooy xew ba tey loolu it képp ku jàpp ne mën ngaa tëral l'islam ci mu réew ba koo jaarale ci parti politique da ngay nax sa bopp mi ngi noonu exemple yi ñu ci gis ci Égypte gis ko ci Syrie gis ko feneen non fële ci Algérie ak feneen kenn xamul nu mu toll ala kulli xaal suñu boroom waat ci way jur ak la muy jur loolu doon kawteef kawteef bu jëkk ba mooy way jur bu jëkk ba di aadama alayhi salaam nga xam ne milliards yi jot a jaar ci kaw suuf yépp ci moom lañ jógee lu muy kawteef waaye it nga gis benn couple nekk ci benn néeg ba yàgg ñu am nañ benn doom ñaari doom bu mujj ñu jiital njaboot fukki doom yoo xam ne génn na ci ñoom bal nga gis benn góor bu mën a am quatre-vingts doom loolee kon kawteef la bu yàlla di def borom bi lan lay waat ci lii mu ne doomu aadama dañ ko bind ci coono mbokk jullit doomu aadama yàlla da ko bind ci coono gis nga ba ngay judd ci kaw suuf bu ñu la mënoon a filmer te léegi ñu ngi koy filmer boo duggee ci internet bi gis ko xale bi judd coono bu dul jeex lay def pour génn ci biiru yaayam ñu bari dañ cey jógee bu ñuy judd ñu yóbbu leen crèche ndax coono yi ñu sonn am na ñoo xam ne sax loolu da leen di far rey benn yoon naan ci ndox mi kaza mbokk bi nga juddee naka noonu yaa ngi nekk ci ay jafe-jafe feebar jóg léeg-léeg ñu ne nañ ko yóbbu jongal ko mi ngi noonu bu jàngi jotee say waajur di la dóor ngay jàngi kërën kërën boo fa jógee liggéey coono la bëgg a takk soxna bëgg a lijjanti kër bëgg a ba baa ngay dajeeg sa borom nag amul kenn ku nekkul ci coono moom kay lenn moo am sonn ci li neex yàlla wala sonn ci li neexul yàlla waaye booy xool dëkki tubaab yi nga xam ne fa la alal fekk baax nga laaj ña fa dem wala ngay seetaan ci télévision bi gis ne ful solitaire lañu lu mat junni nit di dox kenn faalewul kenn dang dang dang dang waaxu guddi da nga ci gis ñoo xam ne pour ñu am quatre heures de temps ñu nelaw sax day jafe ci ñoom ak lu ñu mën a denc ci alal kon suñu borom mooy bi ñu doomu aadama ci coono su ko defee yow fexeel ba sonn ci luy jur ngërëmal yàlla borom boobu nag mu ne doomu aadama jàpp ne ne kenn du ko xatal mi ngi noonu lañu yaqdira comme lañ jàngoon sànq wa qaddara alayhi rizqahu jàpp ñooy daal amul kenn ku muy rendre compte te li ëpp ci yéefiri loolu lañ gëm mooy àllaaxira amul donc yéefiri sax moom ñëpp a ci yem amul àllaaxira amul am na it lenn ci jullit ñu jàpp ne am na yeneen garantie mais amul lenn loo xam ni dañ koy war a rendre compte ci coono boobu ñu daj ci kaw suuf te pourtant daañu la ko laaj yowmal qiyaam mu am ci ñenn ñoo xam ne dañuy puukare woo ci alal dañ dépensé waaw wane kër yu taaru yu rëy yoo dépensé ngir puukare kese wane ay tool yu rëy yoo dépensé puukare kese wane ay immeuble yoo dépensé puukare kese jublu woo ci lu dul puukare alak naa alal ju bëri mbokk loolu suñu borom mu ne xanaa jàppul ne moom am na ku koy gis ca ngalawaay mbokk julit xamal ni dërëm bu dugg sa loxo waxuma million waxuma milliard waaye dërëm bu dugg sa loxo yowmal qiyaama da nga justifier ay da nga leeral noo def ba jot ci da nga leeral foo ko dugal da nga leeral foo ko dugal ak lu tax nga dugal ko fa walla waaye millionnaires yi nañu bàyyi xel ci loolu amul looy def investissement lu dul da nga taxaw ci kanamu borom bi leeral ko ne yàlla day alal jëng nga wërsëgaloon xañ ko sa jaam yu bëri fii laa ko investir ngal la waay laajal sa bopp ndax investissement boobu ngërëmal yàlla mi ngi ci ba pare mi nga noonu ahlaktu maalan lubada suñ borom mu ne xanaa xamul ne am na da jàpp ne kenn gisu ko waaw di man maa ko muy ay bët ah gars yi yàlla mi may bët ndax gisul te moom mooy may lu ñu gis maa ko may làmmiñ yoo muy waxee maa ko may ay tuñ te xam ngeen mbokk li tax wax nit mën koo dégg da nga am làmmiñ ami tuñ soo amul woon làmmiñ du sotti boo amul woon tuñ it wax de ay junj nga mën a wax mais du leer loolee suñu borom moom la wax su ko defee doomu aadama bi it war a bàyyi xel ñaari xéewal yooyu xéewalu bët ak xéewalu làmmiñ bari na ko al ko ay bëtama ko alak mi ngi noonu xool wasalante yi lu bëri ci borom xam-xam yi dañ naan njaaloo boo gis ci xool la tàmbali nazaratun fa btisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa liqaaun ñu ne da ngay dajeeg ndaw si xool ko mu neex la ah nga daal di nuyu ko ma fay la nga muñ mu muñ nga jox ko rendez-vous mu topp la ñu ne kon mbir mi yëpp ma nga commencé ca xool ba moo tax suñu borom ne jullit ñi dee leen sajj seeni bët mbokk bët yooyu du la neex nga cay seetaan dee ca xool li neex yàlla ndax bët benn tiwa la bu jokkoo xol lépp looy seetaan dafa am jeexital bu muy bàyyi ci xol bi mi ngi noonu comme li ngay dégg yépp gannaaw ba làmmiñ li tax doomu aadama yi buñ jógee sawara ñu jël seen kanam dëpp sawara yëkkati seen tànk seen làmmiñ moo leen fa dugal yonent bi alayhi salaam ne nit dana wax benn wax jàppul sax ne wax na dara ñu tàbbal ko ci sawara juróom ñaar fukki at di ko ci mbugal ci benn baat boo xam ne wax na ko jàppul sax ne moom li mu wax garaaw na borom boobu kon mu ne man maa ko tëralal ñaari yoon hërëy naa ko na ci day ay xamal naa ko ñaari yoon yoonu baax a ngi nii yoonu bon a ngi nii léegi nag li bari ci doomu aadama yi nanguwu ñoo jaar ci yoon bu jafe bi al aqaba te mbokk yoonu yoonu jub yoonu yoonu njub dafa bari ay barrage de yoo xam ne nii yu bari moo ci nekk pour nga mën koo jaar jàll seytaane ba ko suñu borom yàlla gi ne ci yërmandeem lu mu waxoon yàlla la aqudanna lahum siratak almustaqim yàlla gis nga sa yoon bu jub bi fa lay dem toog heure boo jógee jëm ci yàlla xamal ne combat bu rëy am nga ko ak cheytaan looloo tax li ngeen dégg ma wax ko léegi yaakaar naa yéen ñëpp da ngeen koy wax mooy bala ngaa jublu ci alquran waxal auzu billahi min asheytaani rajim am déet mi ngi noonu ndax fi nga jële tiirab yàlla bi di jàngi dana ñëw jaxase sa xol jaxase sa sa sa déggin mi ngi noonu loolu kon lépp la yéefir yi aqaba lañu mooy yéefir bëgguñu nit ñi jaamu yàlla suñu borom nee na duñ dañ di leen xeex ba génn leen seen diine buñ ko mënee naafiq yi nga dëkkal di sa mbokk dëkk luy julit ñi loo bëgg a def ci lu baax ñu découragé waaye bokk na ci sa bakkan bi bakkan bëggul lu baax da ngay xeex ak moom kon yii yépp da ngay étape la yoo xam ne da nga war a xeex ak moom pour jàll suñu borom nag daal di cay jël ci étape yooyu benn lu lay xamal aqaba mu ne bokk na ci day fakku raqaba ca muy jël sa alal goreel jaam xam ngeen ne mbokk ak njaam natt la bu yàlla indi doomu aadama yi di ko defante seen biir waaye mu nekk lu metti lool suñu borom dégg li mu wax tekki buumu baat ca jaam te yéen xale yi di leen xool la nga xam ne mooy esclavage fi daan am da ngay gis tubaab yi ñu masaan ñëw fii dugg suñu àll bi dem ñi leen di jàppal jaam yi ñëw ci dëkk yeew waa dëkk bi yëpp mag ndaw góor jigéen niñ daan def giléem yi takk buum fii takk buum ci borom kër gi takk ko ci soxna si takk ci doom yi jiital mi ngi noonu gannaaw ba ñu topp leen seen i jaas ak seen i xep ku bëgg yéex gannaaw ñu dóor wala ñu rey loolee ngay gis borom xar yi tabaski jiital seen i xar noonu lañ daan def sunu maam yi ci marché bi mi ngi noonu kay dee dem jiital ay ay ay ay ay ay jaamam ñi bokk ndey ak baay wala ñi bokkul dara takk buum ñëw yeew ci poto dem gaa yi waxaale boo ñëwee jàpp yeew yóbbu sa kër léegi nag suñu borom mu ne ki dem goreel jaam boobu loolu day da ngay gis ne ci étape yi gën a rëy yu nit ki di jéggi la pour mën a dem ci ngërëmal yàlla wala boog nga lele ñam ci bisu xiif na am mbokk jamonoy xiif nga xam ni ñam dafa jafe lool doomu aadama yi ñépp soxla lañ yor yow la nga am nga jël ci sidd sa moroom loolee ci pakk yi gën a rëy yuy jéggi la pour dem àjjana amma bu dee jamono joo xam ne nit ñépp ñu ngi lekk ba suur su boobaa koo joxoog lekkit da nga ci am tuyaaba waaye lay nga xam ne mooy dëgg dëgg dëgg xeex ak sa bakkan mooy xiif am na soxla nga sa njabar soxla la nga daal di koy génne daal di koy jox la nga xamee ni ni mooy say dëkkandoo wala sa ku lay ñàkk sàkku si ndimbal te loolu sun mag ñi tamit yàlla subhanahu wa taala mayoon na leen ci xëy na yàlla taxoon ñuy def am na ci it ñoo xam ne xëy na aada la bu ñu donn waaye mbokk soo demoon ci kaw gi betti betti la la wax am na ci dëkk yu bari sàq yi dañ koy teg boole ko waa dëkk yépp ñoo bokk fu ñu def seen sàq lan moo nekkoon jubluwaay boobu depuis suñuy maami maami maam mooy dëkk bi bu fi xiif amee day am nag ñoo xam ne ñooy bàyyi ba guddi di ñëw yërlu sàq bi ah sàq suñ càmbee dara desutu fa bu ko defee ñu dem ca sàqum sëñ Njaay jël ci ay sabaaru dugub ñëw defal leen waa dëkk bi yépp ñooy ànd lekk wala waa dëkk bi yépp ñooy ànd xiif loolee mbokk mbaax la goo xam ne suñ maam yi dañ ko daan dañ ko daan def te it loolu nekkoon aada bu rafet boo xam ni warees na ko jàngal njaboot bi muy partage te loolu muy lu jafe suñ jamonoy tey séddoo lu jafe suñ jamonoy tey borom bi nag nee na ki nga xam ne dafay leela ci jamonoy xiif leel jirim boo xam ne dalaa jege ndax mbokku jirim yu bëri ña koy xam mooy ay jege ñaaneen gone yi dox ci mbedd bi wej wej wejooj koo ci mën a xam kii bàyyam mi ngi dund wala bàyyam dundul wax mën loo ko xam mais jege ñaale yi ñoo ko mën a xam yow mën ngaa dëkk fii parcelle xam ne am na jirim ñu nekk ci Kër Masaar waa Kër Masaar kenn xamu ci nañuy ay jirim lañu waaye yow xam nga ko ndax say jege ñaale lañu loolee nga def njekk ci ñoom yonent bi alayhi salaam nee na njekk bi nga jëmale ci jàmbur kooku day njekk la bu yàlla gërëm di la bindal tuyaaba boo ko jëmalee nag sa mbokk kooku day day nekk sadaqatun wasila day nekk sarax boo yàlla nangu day nekk jokk mbokk ñaareel bi suñu borom mu ni miskin bu taxoog suuf li tax ñu tudd ko za matraba mooy koo xam ne nii dafa ñàkk amul dara amul dara loo ko mën a laaj amul amul dara lal bu mu tudd sax amu ko ci suuf lay tëdd ku mel noonu ñu ne mooy miskin bi yàllay wax ay kooku it ñu jël ñam di ko jox muy lekk ca mbokk mi ngi noonu joxe ñam ci li yàlla gën a bëgg ci en jaamu yàlla yi ca la bokk mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala mu ne en gannaaw ba day mooy ñi nga xam ne dañuy dénkante muñ mbokk dénkante muñ muñ ñetti étape la mooy muñ ba def santaane yi bàyyi tere yi loolu mi ngi noonu muñ la nga xamee ne nii moom mooy lor feebar yi nga xam ne nii dalay dal di jóge ci borom bi subhanahu wa taala ak ñàkk yeeg yooyu bokk na ci it muñ coono yi nga xam ne yéeféer yi dañ la koy teg loole yépp jullit ñi dañ cee war a dénkante ku nekk di dénk sa borom muñ ca ca waa ji nga xam ne day jóg di dénkaani muñ la chaque dina muñ ndax boo xam ne ni nit ki daa war a muñ ba nga koy ba nga koy dénk keneen la chaque na kon da nga muñ waaye it di dénkaane ñu yërëmante almarhama dénkante yërëmante te sunu yonente alayhi salatu wasalaam mu ne arruhamaau yarhamuhum rahman ñii yërëmaate yàlla borom yërmaane yi da leen di yërëm irhamu man fi l ard yarhamukum man fi sama yërëm leen ñu nekk ci kaw suuf yàlla mi nekk ci kaw asamaan yërëm leen ca loolu kon mbokk ci yoon yi nga xam ne nii aqbala yoo xam ne ku fexe ba jéggi ko loolee dalay yóbbu ci aljanna moo tax suñu borom ne ñii de buñ ñëwee ñoom la ñuy féetale ndey joor jàngoon nga ca waaqia asxaabul maymana ma asxaabul maymana te mooy ñi nar a dem aljanna mu ne nag ñi weddi samay aaya ñooñu day ñoom la ñuy féetale càmmoon te loolu jàngoon nga ca waaqia asxaabul mashama ma asxaabul mashama suñu borom nee na buñ duggee ci sawara ba suñu paree dañ leen fay tëj te mbokk sawara buñ ñëpp duggee ba pare suñu borom day sant malaaka yi ñu kaste ko tëj leen fa naarul muqsada mi ngi noonu yàlla na yàlla musal ñu ci